ndax eh gosaas la la wax esprit moo ngi togal moo ngi coj te ba lu la saf man maa ngi ne pocak ci biir esprit gosaas c'est ça. donc euh, salaamaaleykum euh, mbokku internetu gosaas yëpp di ziare waa gosaas buzz di ziare également waa esprit gosaas TV euh, di rafetlu seen taxawaay man la Ibrahima Bopp di directeur cabinet du de la commune de Gosaas monsieur Adama Diallo. tey nag dañoo ñëwoon rek pour indi ay leeral eh, par rapport à la situation bi nga ni agent ferra yi de la commune de Gossas koy dund mu nek situation bu métti situation bu précaire eh, li tax mooy ab eh, liggéeykat toog juróom-ñeenti weer joto salaire metti na ci borom keur metti na ci borom famille vraiment loolu euh, ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax euh, di ñaan également autorités yi compétentes yi commencé ko ci njiitu réew mi jaare ko ci premier ministre ba ci ministre de l'environnement ba ci directeur FERA ñu jàppale leen euh, diligente situation bi ba borom kër yooyu. mën a jot seen salaire loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan autorité yi autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi ndaxte mbir mi buñ koy xool dafa xaw a tagatémbe te fi muy tagatémbe wax dëgg yàlla au niveau central boobu ba ñu ngi liggéey te gi gi ko gis agent FERA gis li ñuy daj dëkk bi xam na dëkk bi bu setee wax dëgg yàlla dugal nañ seen loxo baax yàlla grâce à ñoom vraiment gis nañ liggéey bu am solo bi ñuy def gis nañ taxawaay bi ñuy taxaw askan bi également vraiment ñu leen ciy jaajëfal bu baax ci turu maire nag Adama Diallo waaye di leen masaw di ànd ak ñoom lii nga xamante ni moo retard de salaire mu metti bu baax waaye ñaar rek la ñuy def en tant que autorité demander également solliciter également les autorités centrales à ce que ñu diligenter situation bi ndax agent yooyu mën a jëm seen feeraal loolu moo wax dëgg yàlla ñu koy ñaan Euh, xëy na nag nag dinañ ci indi tuuti leeral ndaxte wax dëgg yàlla euh, bi ñu defee seen point de presse donc euh, interpellé interpellé nañ le maire de la commune de Gossas muy monsieur Adama Diallo alors que wax dëgg yàlla le maire n'est pas compétent amul sañ-sañ bi mënu ko également di fay ay salaire fédéral donc yaakaar naa ne mbir mi au niveau central la defee kon ko buñu yëkëté ay cadre interpeller le maire de la commune de Gossas suñu war warugar la suñu devoir la en tant que son directeur de cabinet nekkal ko fi également indi ay léral ndax té baña jaxassé lu askan bi ndax monsieur Adama Diallo ku ko xam xam ko ci yermandé ak bañ retard salaire ndax au niveau de sa commune bi ñu nekk ni depuis 2022 ba légui amul liggéey kat bu mairie bi war fay te jotul salaire am amul jotul salaire ba li ma ci mën a wax sax mooy fonds de bi ñu tardé ren te am ñoo xamante ni waroon nañ cee jot moom moo génn ci poosam di ko fay di ko fay ba kenn mës sa toog weer ba day jotoo salaire kon nag Feera nekk na loo xamante ni du compétence am Feera mënu koo fay te leer na ma ne yéeneem mooy su ko mënoon a fay suba mu fay leen te dem toppi ñi war a toppi kon donc yaakaar naa yëkkati ay kàddu. le maire de la commune de Gossas da a ñu ngi a mais également a de de lutte avec du le maire de la commune de Gossas du de salaire c'est un projet de l'État pour certains li nga maintenir donc salaire au niveau central lay ce donc c'est pas la commune qui paye c'est pas le maire qui qui paye donc loolu moo waral ñooy dinañ ci génn ñu wax dëgg yàlla wax ci li nga xamante ni moom lañ ci war a wax leeral li nga xamante ni moom lañ ci war a leeral nit ñi xamee ko noonu donc responsabilité bi c'est pas sa responsabilité niveau de responsabilité bi ñu ci am mooy recruter les gens loolu dañu moom moo ñu war bi ñu ko defee ba pare également lépp loo xamante ni état de Pays-Bas la yaakaar naa ne mu ngi nii ak mag def nañ ko et c'est signé par le directeur ki nga xamante ni mooy directeur Fera donc avant na ay et tout ça ñu ngi nii donc lépp loo xamante ni commune de Gossas war na koo see def rek moom def na ko ci déplacé wu au niveau de la direction yóbbu ko donc le directeur a tout signé donc il reste que les alertes donc loolu également nit ñi xamee ko noonu kon monsieur le maire de la commune amu ci benn responsabilité boo xamante ni war na ko cee def te def ko ci taxaw na ni mu war a taxaw. defe na ni ñu war a defee te bu sañoon tey ñooñu nga xamante ñu ngi liggéey ci dëkk bi di ay doomu Gossas kenn du ci am retard salaire waaye nag ah bu ñu la tàllalee mu ko également ci maire ci loo xamante ni du compétence am suñu devoir la également ñu gën a a ñu ne nañu génn donc leeral askan bi xamal leen li nga xamante ni xëy na nag am na ñu commencé jot yeneen communes yi comme ni ñu ko waxee dëgg la mais également. yaakaar nañ ne aussi commune Gossas dara jot ndaxte ñu ngi waxtaan ak autorités yi di leen alerter di leen ñaan également pour lépp loo xamante ni mooy dilidate situation bi ñu jàpp nañu wax dëgg yàlla fayal ñu li nga xamante ni mooy agent yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xamante ni yéen fi yéen fi teew di rafetlu également seen liggéey bu baax a baax a ngeen jëf merci beaucoup ndax eh islam yi gosaat la la wax esprit moo ngi togal moo ngi coj te man lu la saf man maa ngi ne pocak ci biir esprit gosaat se ça